liggéey ci liggéey bu am solo lool ngir waajal ñi nga xam ne ay turandoo maam jaara bu lañ ngir ñu nekk ñu mat ci seen wàllum diine waaye it ñu yar leen yar goo xam ne fépp fuñ dem daañu fa nekk référence boole kook mën alxuraanul karim lool jataay bi firnde la ci min ajli dalik katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin fasadin fil ard في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أما نحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون يحاربون الله ورسوله ويستعون في الأرض بصائر أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم alif laam miim soode kitaabun unzila ilayka falaa yakun fii sadrika harajun minhu litundira bihi wa dikraa lilmu'miniin ittabi'uu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabi'uu min duunihi awliyaa qaliilan maa tadhakkaruun wa kam min qaryatin ahlaknaahaa fa jaa'ahaa ba'sunaa bayaatan aw hum qaa'iluun فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ثم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا موتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرجنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين qaala fa bimaa axwaytanii la-aquudanna lahum siraatakal mustaqiim summa la-aatiyannahum min bayni aydiihim wa min xalfihim wa an aymaanihim wa an shamaa'ilihim wa laa tajidu aktharahum shaakiriin qaala axruj minhaa mas'uuman madxuuraa laman taba'aka minhum la-amla'anna jahannaman minkum ajma'iin wa qaaluu mahmaa ta'tinaa bihi min آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ni nga xam ne noonu la maam jaare yi mokkale alxuraanul karim gi ci njàng mu sell liggéey bu am solo boo xam ne mboolem jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ca daara yi maam jaara ja def nañ ko saa su ne ànd njiital daara ji ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy saytu daara ja di leen taxawu suba ngoon guddeeg bëccëg ngir li nga xam ne moom la ñuy def ci ñoom muy alxuraanul karim mu nekk lool buñ ko mokkalee fépp fu fuñ ko tari rek daañu xam ne ñii mokkal nañ mokkal gu wér liggéey bi it fondation Maam Jaara bi nga xam ne Serigne Isaaxa Mbàkke moom Serigne Basiiru moo ko jiitee